dañ doon jàng julli lañ bëgg jàng yi koy jiitu ci lañ neexoon jàng nañ laaf jàng nañ waxtu yi nodd ak liqaam la lay jàngal al adaanu lim do mooy xam le waxtu yi jot na ana nuñ koy defee la wax ne baabun lii buntu la bil adaani ci biral la xatteeb noddu wal iqaamati ak xatteeb liqaam noddu luy xatteem li xam luy xàtteem ak nu ñuy noddee ak nu ñuy li xaamee lay jàngal mu ne wal adaanu noddu waajibun lu war la noddu sunna bu fade la fil masajidi ci jàkka yi ñu ko sunnaal ci jàkka ju nekk nag wal jamaati ak mboolo yi arratibati da way sax wala barab yi nga du jàkka waaye dañ ma saxal jullig mbooloo foofu lañ sunnaal noddu jàkka wala bu xam ne bu dul jàkka itam saxal nañ fa jullig mbooloo foofu lañ sunnaal noddu fa amma rajulu daal waay fi xasati nafsi ci daal ak boppam fayin addana bu noddee fa hasanun lu ñu sopp la amma kenn nit koo bëgg julli te duut ne këram la nekk ndax dafa génn kooku sopp nañ ci moom mu nodd waaye duñu wax ne sunna la ci moom waaye kenn na biir néegam nag su demee bay julli dëgg-dëgg warta nodd nag gis nga ko baax mbooloo mu xam ne dañoo gaar itam ñu nekk ci tool de bay rek waxtu julli jot nee nañ ànd julli boobu amul nodd fa ama daal waaye fi xasati nafsihi ci daal ak boppam wayin addana bu noddee fa asanun lu ñu sopp la waaye nag wala bu da jaas la woo de ko ñaal mais li xaamati ci waaye góor nag man da ñàkk li xaam ci julli moom waa man ma daal jigéen fay na xaamat bu li xaamee faata ñu soppala jigéen nag farataaluñ moom li xaam ko ci moom su ko defee dañ ko soppala ñoo wax su koy defit nag da koy waaye waru koo biral nag way la bu li xaamul moom jigéen fala haraja bakkaar waru ko ci liqaam yëfi góor la mo ci moom lañ ko sunnaal bu dee jigéen dañ ko sopp ci moom su ko defee baax na su ko defuleen nag wàññiwul dara waaye nag bu demee bay ko def na ko yeer wala yu asiru dumu noddal li salaati ñaar genn julli xam la waxtu haa ci njëkk a tàbbi waxtum julli kenn waru koo noddal te dundi waxtum dafa jot ndax al adaanu lim dox mooy xamle ne waxtu wi dikk al adaan xamle lay firi al adaan xamle lay firi al i'laam bi duxoolil waxti loolu mooy adaan xamle ne waxtu wi tàbbi waxtu wi tàbbee gun nga ne tàbbi na mooy la moo tax julli bala nga koy noddal da ngay ne ba mu jot illa suba ndaree suba kooku balaa baasa dem na sopp ayu asina ba mu noddalat lahaa ñaal ko si suddus si ci suddus alaxiri bu daa ji mina layli ci guddi su moyee jullik suba kooku de bëgg nañ suñ demee ba nga xam ne guddi koo xaaj juróom benni xaaj juróom yi dem nañ benn moo dox fi ak xaru fajar ñu noddalee ko foofu tel koy noddal loolu de sopp nañ ko ci ah guddi juróom benni xaaj benn bi dem na maa juróom benn yi dem na benn moo des fi xaru fajar nga noddalee ko foofu su fekkee jant bi fi mu fenk fi mu soyee ak bu ñoo jullee fajar fukki waxtu ak ñaar la suñ demee ba nga xam ne léegi kii juróom eh, eh, fukki waxtu yi dem nañ mu des ñaari waxtu yi nga noddalee ko foofu wala baasa def na sopp ay waasina ba mu noddala laa ñaa suba ci sudus ci sudus alaxiri bu raaji mujji mais layli ci guddi wal adaanu dëgg-dëgg yi noddu nag xañ na xañ na julli jot na soo ko waxoon xam ne nga waxtu wi jot na waaye sëriñ nag bu ne alasaan lim ci jublu dëgg-dëgg nag allahu akbar allahu akbar lay do ba mu xaag su ko defee di xëcc baat yi ba mu ne bëgg xaag ci foofu kooku moom dañ ko war a wattandeku ndax itam nag diine ju du affaire folklore affaire folklore rek de affaire neexal baat ak xumb te rek kooku di diine diine ji lim doom mooy def li yàlla santaane de xëcc baati noor di bu muy bëgg a àgg da xëpp naa def mu xëpp naa def dëgg-dëgg su ko defee itam da ngay sukkoon ca ci baat yi ndax sa baat mën a jóg da nga allahu akbar loolu ngay wax dégg nga sukkoon cat li baax bi da ngay wattandeku xëcc ko bu wax allahu akbar loolu duñ ko wax allahu akbar la wax allahu yàlla mm-hmm. akbaru moo gën a màgg li ngeen nekkee yëpp lu ci waaye mën a ne na ne yàlla gën a màgg loola te yàlla soxla na ko kon na balam ne dafay jiwateeg yàlla bi waaw lu ci waaye mën ne na ne yàlla gën a màgg loola kon war ba loola le dégg yàlla ki ko noonu de kat bi loolu wax nit ñi te su fekkoon da ngaa xëcc nga ne allahu akbar kon ci waxi arab li muy do mooy da nga ne yàlla ay ndënd la ñuy tëgg kabar tëggukaay la moom lañuy ñuy jamoole ak kabaar su ko defee yàq bi niru a lu xoyam ci baat waaye lu ñaaw la ci wàllu maana nag loolu dañ koy wattande ku dégg nga allahu akbar ashadu an laa ilaha illa allah saak ashadu bi da wattande ku xëcc ko bul wax ashadu an laa ilaha illa allah ki xam waxi arab li muy jàpp mooy da ngaa laajte ne ndax yow seede nga ne yàlla kenn lam te wax dëgg laajte wuloo da ngay saxal ngay wax nga bañ a xëcc hamza danaa dëggal te seede ne maa ngi dëggal te seede ne an naka luy mbir laa ilaha hamza ak boobu wattandekul jàngee ko ko wax hamza ak ilahu boobu wattandekul jàngoo yaa laa ilaha duñ ko de wax dégg laa ilaha illallah laa ilaha de buur waaye jaamu illallahu ndare oh, ashadu an laa ilaha illallah ashadu anna muhammadan rasulullah tanwinu muhammadan mooy maskal ñaareel la koy sarde ci raag rasulullah muy ashadu anna muhammadan rasulullah ashadu maa ngi dëggal te seede ne ashadu bul ko xëcci anna muhammadan naka muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi yonent bi yàlla la ashhadu anna muhammadan rasulullah suma nga delloo bi arfan ci lu gën a yëkkateku min sawtika ci sa baat awala marratin ci yoon wu njëkk wa tukariru nga baamu atasahuda baati seede bi nga waxee allahu akbar allahu akbar nga ne ashadu an laa ilaha illa ashadu an muhammadan rasulullah ashadu anna muhammadan rasulullah baati ashadu yooyule danga koy baamuwaat waxee ko nu gën a xiir nanga ko waxee woon boja fa taqool nga wax baamu ne ashadu an laa ilaha illa allah waxee nu gën a xiir nanga ko waxee woon ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah dégg hayya ala salaa da ngay jàng ci kanam lam gi doo hayya ala salaa nga hayya ala salaa la ñuy wax hayya jege si leen te gaaw si ala ci julli gi su ko defee taa bi boo ci waxtu fu haa nga koy jàngee nga ne hayya ala salaa waaye boo ko neenalee nga ne hayya ala salaa baat bi ci lam cële gi salaa bu xamul ha jaaru lay firi kon woowa nit ñi ci julli am jaar nga leen di wooye loolu nag baaxul la bu xam ne ne xam ne ci làmmiñ lu ñaaw la ci wàllu maana nag kon da ko war a bàyyi xel hayya ala salaa hayya ala falaah hayya ala falaah haa bi da nga ko jàngalee bul wax hayya alal falaax rek nga xem ci hayya jege si leen te ci sabab si texe si su fekkee falaax haa ndax mu ngi xem rek muy falaax kon moo de xàll nag xàll ci ngay woo nit ñi hayya alal falaax fa in kunta fii ci nodd suba su fekkee nodd suba la zitta nga dolli haahunaa ci bii te mooy gannaaw hayya alal falaax bu ñaareel bi buy nodd ak suba da nga ciy dolli assalaatu xayrum min annawm assalaatu xayrum min annawm assalaatu xeexu ngir julli xayrun moo gën min annawmi bànneex bu daa jaxamee ci nelaw bànneex yi ngeen a ci nelaw xew julli jéego gën ci yéen wala asalaatu yoolab julli xayrun moo gën mina nawe bànneex bu daaj amee ci nelaw bànneex yi ngeen amee ci seeni nelaw tiyaabu yi ngeen amee ci jullee ko ëpp njëriñ ci yéen waaye su fekk waxin la rek waaye nelaw amul bànneex taw di waxin rek waaye nelaw amul bànneex donte bakkan bëgg na ko amul bànneex kañ ko ah xam nga bi nga ne la xamul yëg ko amul yëg du yëg bànneex seetloo ko la te ba nga yeewoo jeex na lu jeex duñ ci bànneexoo di ba nga ne la woo xamagul loo xamagul duñ rek waaye nelaw amul bànneex lii dëgg mooy gëmeentu mooy jàngoro nelaw di ko xëy loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg dégg lii dëgg mooy gëmeentu mooy jàngoro nelaw di ko faj waaye nelaw amul bànneex yow jamono bi ngay nelaw toll ci nelaw yi amul yëg ku amul yëg du bànneexu te ba nga nelawagul nelaw yi amuñoo loo amagul kenn du ci bànneexu bi nga yeewee itam jeex na ma ko waxin la rek waaye nelaw amul asalaatu xayrun min annawm soo mënee jàng aw bi ak amma bi noonu nga ko war a jàngee soo ko mënut nga jàngee ko ni ko war a ja ni nga ko mën a jàngee rek te muy niñ ko bindee nii wa asalaatu xayru min a nawam loolu duñ ko wax loolu baaxut ak mën a dégg moo ko baaxut mu ngi mel inna anzalnaahu fii laylatil qadar koo mën a dégg mu wax ko du jàngin bu baax baaxut dégg nga baaxut ak ku ko mën a def rek baaxut waaw dégg nga mm-hmm. kenn dara jëf ji ne baaxut xam nga ni ma la waxee jëf ji laa ne baaxut waaye waxuma kenn dara jotewuma kenn dara bay wax kenn dara mais booy jàngale fokk ni li baaxut nga baaxut loolu moo ci nekk waaye jëf ji moom baaxut laa wax ak foo ko mën lu baaxut nga gis rek kon bu la ci kenn yóbbaale baatu qadri nga de ci wax bu jàngee ko qadar loolu tajwid nanguwu ko waxi arab nanguwu kon yàq kese tajwid nanguwu ko waxi arab nanguwu kon yàq rek rek la jërëjëf bu baax a baax léeg-léeg nga dégg waaye foofu mën a dégg baaxul tey dégg nga loo baaxul moom su ne ah bu xasee ba bu xasee ba ne nangam baaxul xamul ku dëkk fii ak ku dëkk fële ku bokk fii ak ku bokk fële su ne ah xamul loolu lim xam mooy lii baax rek nit war na koo def lii baaxul rek nit waru koo def loolu aw fi'lu ma la yanbaghi la yanbaghi lu xelu ta def moom def ko xelu rek amul dëkk bi amul dëkk ba rek wa fi'lu ma la yanbaghi la yanbaghi def lu xelul xelul mayuñu ko kenn li tandax yi amul tandax laa dëkk wala li xëyri tandax yi kenn fu mu dëkk bañ a mu dëkk bañ parce que aluma la yem doxi la yem doxi li jàngal wala ñaare li jàngal moo tax duñu ko wax laa taqul bul wax dalika salaatu xayrun min annawm fi xayri nidaayi subi julul noddak suba allahu akbar allahu akbar laa ilaha illallah maratan yoon wahidatan wade wenn nodd lépp ñaar yoon lañ koy wax su moyee laa ilaha illallah biñ koy tëjee su fekkee lépp da nga ko wax benn yoon wala li ëpp nga wax ko benn yoon kon nodd googu du doy dañ ko baamuwaat pour mu wér il faut lépp ñaar yoon lañ koy wax suma moyee laa ilaha illallah biñ koy tëjee su ko defee badi ngay noddee mu ngay le xaamee tuuti moo leen xaajale waaye am na yu leen xaajale noddkat dañ koo sant muy sukkoon jati baatam di sàmmanteeg waqfu ndax na baatam mën a jóg buy le xaamkat nag dañ koo sant mu sàmmanteeg arab arab bu nekk na jàngee catam na fekk ñu maasee ko ndax soxla wuñ ci moom baat bu yëkkateeku te itam baati le xaam yi su moyee allahu akbar yëpp benn yoon lañ ko a wax su fekkee li yëpp da ko wax ñaari yoon wala liqaam bi yëpp nga wax ko ñaari yoon kon li am mooy liqaam bi wérul wala liqaamatu liqaam bitrun tool lay doon mooy ay baatam benn yoon lañ koy wax allahu akbaru allahu akbaru ashhadu an la ilaha illa allahu ashhadu anna muhammadan rasulullahi ñun nii lañ ko jàngee yaakaar na ñàkkul riwaayaat yoo xam ne ashadu anna muhammadan rasulullah dana ci ànd ak waaw naan waa ashadu anna muhammadan rasulullah waaye ñun daal lii lañ jàng ñun sadul maat ana na fu waxee du ñàkk lu dégg hayya ala salaati hayya ala falaahi lam daan firi ca nodd rek qad qaamat jege dina taxaw asalaatu julli gi noonu lañ koy fiyee doo taxaw noonu la taxawagul ka xaamat jege dina taxaw asalaatu julli gi allahu akbaru allahu akbaru laa ilaha illallah lii la ñuy def